الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على مجمع شؤونه وحقيقة كونه سره سيدنا ومولانا محمد بهجة كونه والدياء نوره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 yi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy walis ko ma tibbeeku ci sama xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ci kartanal yàlla fas yéene sof ak yéen li ñu sosoog na yéen ci seen nidaatu rahmaan tey nekk suñ juróom ñett fukkeeli jotaay ak juróom ñeent muy quatre-vingt-neuf ci nidaat yi mooy woote bi ci mujj sax ci wootee yàlla yi yàlla ku baax ku bari yërmande yëg ne doom aadama ji dañ koo bind ñaari maamam di ko xëccoo maamam bi loos maaham ba nga ca kaw maamam ji loos maaham mi ngi ci suuf maamam ji mooy ban moo dëkkee suuf maamam jële moo dëkk asamaan muy roox ñaari maamam yi nag kenn ku ci nekk di wax doomam ji ne ko kaay nga niru ma bakkan ne waay waay waay kaay nga niru ma suuf ne yow bakkan kaay nga niru ma maay sa maam maay sa baay maay sa cosaan niru ma ci tilim niru ma ci tilimal niru ci suufe niru ma ci suufe suufelu ci topp say bànneex ci wàllu wax ci wàllu pas-pas ci wàllu mbooleem sa juróom-ñaari organes yi lépp luñ la laaj rek jox leen ko maamam jëlee di asamaan nga xam ne fa la rooxu soqee ko di xoo sëtam bii mbaa doomam ji ne ko waaye yow roox kaay ngi kaay nga niruma ci yëkkatiku kaay nga niruma ci kawe kawelu kaay nga niru ma ci buddeekoog jombalu mbir yu suufe yi te lépp luy mbir mu kawe ci wax ci jëf ci pas-pas ci comportement nga jéem ko comporté woo ñaar ñii nag ñooy xëccoo nit su ko defee nag léegi-léegi nit ki rëcc wàcc ba niru ndeysaanam suuf ci suufe suufelu jëf-jëf joo xam ne wallaahi jëfuwut mbaa mu wax wax joo xam ne wallaahi waxuwut wala mu fas ci xolam fas fas boo xam ne wallaahi fasuwut yàlla ne ko du tax mukk nag ma bàyyi la fexe la raxaslu rek gannaaw bi nga tilimee fexee la sangu rek gannaaw bi nga tilimee soo ma tàllalee sa loxo yi rek ma jël ko waaye léeg-léeg tamit mu góorgóorlu ba niru maamam asamaan yore jikko yu set yu sell yu baax yalla ne ko nii la ko beugé waaye bu rëccee tamit ba ma aw la rek duma ma nangu nga daanu mukk fek yaangi ngi daal di xex rek fasiyene mbax rek ma tal la samay loxo motax na yalla yàlla ne lay lay nit ki dana daanu ndax nit ki dañ ko bind ci diggante mala ak malaka léeg-léeg mu bax ba melni malaka. waye waaye léeg mu bona bon a bon ba melni ni mala topp bakkanam rek ak bëgg-bëggam te xam nga sidi muhammadul amin dafa daan wax ne nit ki bu baaxee ba mel ni malaaka mooy gën malaaka parce que malaaka mbaa xam nga sonnut ca waaye bu xeesee ba mel ni mala mala koy gën parce que mala mbonam nga sonnut ca yàlla nag ne boo bonee ba mel ni mala te fas yéene bëgg a baaxaat ba mel ni malaaka boo ma tàllalee say loxo timit ma jël ko moo tax mu indi taw ba moo tax mu ne yaa ayyuha alladina amano yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla tuubu tuub leen jëm ci yàlla taw ba tan ak tuub na soo xam bu sell bu ko defee rek asaa rabbukum ko def na nangi na seen borom an yu kaffira ankum sayyi'atikum seen ñaawteef yëpp dana leen ko muural du ca xem wa yadxilkum jannatin mu tëddal mu mu tàbbal leen ci aljana yoo xam ne tajri min tahtiha al anhaaru dex yaa ngay daw ndeysaanam yu soow ya yu ndox ya yu lem ya su ko defee te da ngeen cay xéewlu su ko defee tamit bis la boo xam ne buñ ca xeggee du ma toroxal suma yonent bi du ma toroxal képp ko àndoon ak moom dina leen may leer goo xam ne moo leen di lumière ci seen kanam ak ci seen ndeyjoor ngeen wax ne yow yàlla suñ leer ak gëm yàlla gi nga xas koy met ñu yàlla bu mu coupé nañu gunge ci siraat ba jël suñ ci aljana kon gis nga aaya ji dafay bañ nit ki naagu wane ne nit ki daal xas na tarxiis waccandiku na daanu na yàqu na fuute na kenn mun defarati de yàlla ku ko teg ku ko tàllal loxoy bëgg a baax rek mu jël ko ak noo mën a mel moo tax kon dafay bañ nga nga boo tarxiisee rek nga sax ca waaye da ngay dem nga jéem tuub xam nga nit ki ci mbaax lañ ko bind ba muy juddu xolam dafa set wecc ba mu demee ba mësoor nag bàkkaar ba mu jëkk def dafa nekk benn tomb tomb bu ñuul ci xolam bu tuubee sax yàlla effacé ko bu defaatee bàkkaar tomb ba yokk mu defaat bàkkaar tomb ba yokku bu ca saxee nag dana dem ba tomb tomb bu ñuul boobu mujj lekk tomb yu weex ya ca nekkoon boobaa nag xol ba dootul amati réseau soo ko waxee dëgg du ko nangu dootul bëggati yàlla du bëgg yonent bi dootul mën a pratiquer diine dafay dugg ci kàllaa barraana ala qulubihim ma kaanu yaqsibuuna ci mutaffifina ji doon yàlla di wax ci aaya treize moo tax abi hurayra ne yonentoo wax ne jaam bi su fekkee dafa mooy yàlla genn ak mooy dañuy def ak tomb ci xolam bu ñuul su fekkee buddeeku na jéggalu yàlla ñi fomp ko bu ca delluwaatee ñu yokk ko bu yokkee di yokk nag day dem ba tomb bu ñuul ba mujj muur tomb bu weex ba moo tax yonent bi ne inna al abda ida axtaa xatiatan nukkitat fi qalbihi nuktata sawda nuktatan sawda fa ida huwa nasaa wa staxfara wa taaba suxila qalbuhu fa in aada zida fiha xata taaluwa ala qalbihi wa huwa raanu alladi zakarahu llah fi kitaabihi bu ko defee mu ne kàllaa ba raana ala qulubihim maa kaanu yaqsibuun moo tax kon mu fassiruuna yëpp d'accord ne zanbu bàkkaar ci kaw bàkkaar dafay ñuulal xol mujaahid ne na góor gi su fi nit ki su fekkee dafa def bàkkaar bàkkaar ba dafay peeg xol ba su ko defé mu bakaratu tegaat xol ba ba mujj nag mujj muur ba ba dotul amati connexion dotul amati ben leer motax yeen yéen julit ni ma ngi ñaan ku ci def bakar gawal nga tuub tuub ga nag dafa xamé ay charte bi ci njëkk moy nga nga ku ca bakar ba kenn ku tëggoon ci xalu safara na muy tebe ñaarel ba nga réccu lu taxon ngay def bakar bi ñettel bi nga dogu na li def sama nga ko defati su ko defee mu amee melaw xalu safara xalu safara ku ca dëgg da nga tëb ku ca dëgg da ko réccu ku ca dëgg da nga da nga da nga dogu xal bu may làkkati mais dunul duma tibi kooku nag mooy yaa ayyuhal lazina amanu tuubu ilallahi tawbatan nasuhan kooku kon nañ ci bàyyi xel gis nga ko aaya ji ndeysaanam loolu la ci yàlla di jàngale moo tax yàlla jël na ko gis nga yàlla jël na ko ni daa ab ni daawul axiir mooy ni daaw bu mujj mu def ko muy tuub xam ne daal tuub rek rek rek rek moo mën a dimbale jaam bi tuub rek moo mën a delloo jaam bi tamit ci cosaanam aadamaa ngi nii mooy sa cosaan bam tarxiisee dafa tuub fa taaba alayhi innahu huwa tawaabu tawaabu rahim waaye gis nga yàlla ni muy taftalee yaa ayuha yi sax moo lay yéem xoolal yaa ayuha mujj rek ci mushaf bi ci tartib bi da ngay yéemu ci yàlla amma tartibu nusul fa innahu yakunu ala xasbi nusuli suwar su fekkee ci toftale wàcc gi la moom saar yi moom nii ñu toftalee ko noonu lañ wàccee waaye su fekkee nag ci toftale mushab bi moom mi ngi nekk ci fa innahu yakunu ala xasbi ma dawana saxaaba alquran mi ngi mel ni mi ngi mi ngi nekk ci kenn ni ko saxaaba yi euh, toftalee xee tabaarakallaahu dagalee ko ko ci mushaf boobu mu nekkoon ca sayduna Usmaan waaye bu ca mën di am ci ñaar yi ko jug xemaleeg yàlla la mooy kilaahuma tawfiqiyun ilaahiyun tawfiqu tawfiqun ilaahiyu la su ko defee kon nag nga xam ne yàlla daal kenn du moom moom rekk moo man lii su ko defee nag tuub ci boppam xéewal la gu mag bu baxee ko ci yàlla ñëw ci jaam yi waaye su fekkoon ne xam ngeen ni tuub xamut jaami yàlla yi ñooy gën a ñuul këriñ maa la ko wax jaami yàlla yi ñooy gën a taq iwil taq goo xam ne kenn du ko mën a teqaleeg ñoom waaye set geeg leer geeg lépp gannaaw yàlla la ñuy ko dimbale mooy tuub gi rek waaye bu tuub xamutoon tuub daal porte yërmandeem yàlla la bu mu hubbil jaamam yi moo tax du ko tëj mukk fekk jaam bi nekkul ci xar-xar dee du ko tëj mukk lu dul jant bi fenkeegut xarfu foofa yëpp foo defee bàkkaar rek yàlla ubbil na la portom ba te xam ne ki ñoo xam ne sa yàlla balaa ñoo tuub yàlla dafa leen a jéggal ba pare door leen a ci tuub yàlla nañu si yàlla boole moom la wax ne summa taaba alayhim li yatuubu yàllaa def ci ñoom tuub ba pare nangul leen ko door leen a tuubloo innahu huwa tawaabu rahim rek moo ci mën a tegu kon nag tuuba ngoog wax naa la ko dafa ami sarta tuub ci luga mooy tekki boo ko jëlee baat bi lugatan mooy mooy tekki arrujoo arrujuu ilallahi su ko defee nag tuub loolu lay tekki arrujuu ilallahi ndax jaam bi dafa bari lu koy yàqal bari ay noon bakkanam noonam la saytaane noonam la bànneexu bakkanam noonam la xàddunaam noonam la yile yépp kenn ku ci nekk mi ngi mi ngi maanaam laxasaayu caay-caay di wax jàmbi ne ko doo fi baaxee doo fi baax lee su ko defee nag eh, yàlla moom ubbil jàmbi ne ko tey nga baaxee fi de tey nga baax lee fi de bu bu dégloo yàlla rek du mooyu ñett ñeenti noonam yooyu nga xam ne dañ koo bëggal mais bëgguñ ko rek su boobaa ala kulli xaal fokk rek mu baax fokk rek tamit mu baax baaxle moo tax kon tuub daal dafa war ci sarta ya nga buddeeku ca walis mooy yàlla ga al iqlaaw anil maxsiyati su ko defee nag buddeeku ca carrément boo doon naan sàngare nga ne banaako boo doon tux nga ne banaako ko doo xaar doo bi jeex de boo doon sàcc nga ne banaako boo doon njaalo nga ne banaa ko dutuma ko defati mukk bu ñaareel ba nga réccu lu taxoon nga ko doon def a jële ca réccu ga lakkatu xol bu metti la lool ba nga wéet sax di jooy ndeysaanam hmm. bu ñetteel ba nag nga dogu ci sa xol ne dootuma ko defati mukk li def ci sama dund bi su ko defee nag ya nga xam ne danga dafa laa dabaatal yàlla faat nag ca waxtu ya nga fexe koo dabaatal li la faat ci xaq sa diggante nit ñi nga fexe koo delloo loola boo ko defee rek yàlla ko baax la na nga yëg ne yàlla jéggal na la bàkkaar ya waaye xam bàkkaar tuubee ni ba pare di xalaatat ndax yàlla jéggal na maam déet sax foofa la bàkkaar xem hmm. moo tax kon tuub mooy saxal ak kenn ak yàlla ka iqraarul bil waxdaaniya loolu nag lu xam am solo la abi hurayra dafay nettali xadis boo xam ne yonentu bee ko jëlee ci boromam yonentu bi ne asnaba abdi zanban bu yàllaay wax ci hadisul qudsi sama jaam bi def na bàkkaar ba pare mu ne allahuma ixfir li zanbi yow yàlla jéggal ma sama bàkkaar sama borom fa qala tabaraka wa taala asnaba abdi zanban fa alima anna lahu rabban sama borom sama jaam bi bi mu defee bàkkaar xam na ne xam na borom boo xam ne moom rek ay jéggale bàkkaar mu jéggalu ko man yàlla jéggal naa ko toppatuma ko dara su ko defee kon nag loolu dafay neex yàlla te yàlla day bég ci bu jaam bi defee bàkkaar ba pare tuub na ca yàllay bégee mooy gën a raw ku nekkoon ci àll waruwaayam réer ko ba ci kanam mu feeñ ci moom te mu xam ne fa mu doon jëm bu amul waruwaay du fa hegg mukk na muy bégee wallaahi boo defee bàkkaar nga tuub nu ko raw la yàlla di bëggee bàkkaar yëpp nag eh, boo def rek rawatina bu mag tuubal bàkkaar yi ñaari xaaj lañ dafa am ñu ne bu ndaw ak bu mag xam ñu gëm ne sax bu ndaw carrément amul ndax yàlla moo ndawut kon mënuñ koo tooñ kon tooñ bu ndaw tooñ ma ngay xaajoo ca kañuy tooñ nam toll la noonu la tooñ yàlla ko màgg la mënoo koo tooñ tooñ bu ndaw wa ala kulli xaal daal li gën a siiw ci lisaanu awaam yi mooy kabaayir yi ñaar rek la bu mag ak bu ndaw bu ndaw bi moom xam na ci yoo xam ne promotion yi mën na koy effacé boo teetee bàkkaar yu mag yi yàlla jéggal la bàkkaar yu ndaw yi donte tuuboo ko julli ak moromam day kafaare bàkkaar yu ndaw donte tuuboo ajjuma ba moromam ajjumaam day kafaara bàkkaar yu ndaw donte tuuboo weeru koor ba weeru koor del si war day kafaara bàkkaar yu ndaw donte tuuboo bàkkaar yu mag yi nag moom tuub rek moo ci mën dara bàkkaar bu ndaw yàlla tubb na ko in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nu kaffir ankum sayyi'atikum wa nu duxilkum madxalan ñu jàng mudxalan kariman waxaat tamit ci ne allazina yajtanibuna kabaira al-ismi wal fawahisha illa la mama illa la mama mooy bàkkaar yu ndaw yi loolu kon mooy bàkkaar yu ndaw saxaayiru zunub lañ koy tuddee su ko defee nag saxaayir yi mooy demee ni fóon jigéen te jotee ko moom jotee mooy bàkkaar bu mag mais fóon gi bàkkaar bu ndaw la demee ni tamit laal jigéen ci sa loxo bàkkaar bu ndaw la xool jigéen bàkkaar bu ndaw la yooyu yëpp boo defee istixfaar rek yàlla jéggal la ko boo taxawalee julli juróom yeeg taxawal farata yi rek yàlla jéggal la ko kàbbaa bàkkaar yu mag yi nag boroom xam-xam yi dañoo wuute ci yooya ñaata la boo demee Ibnu Abbas dafa wax ne bépp bàkkaar boo xam ne yàlla da koo tëjee sànjam yàlla wala mu tëjee ko tëkk boromam ci safara wala mu tëjee ko rëbbam yàlla rek loola bàkkaar bu mag la noonu la ko moo tax ibnu abbas ne kullu sanbin xatamahu llahu bi naarin aw xadabin aw laxnatin aw asaabin rek kooku mooy kabira yenn borom xam-xam ne kabiratu daay mooy kullu zanbin fiihi xaddun fi dunya aw waidun fi alaaxira bépp bàkkaar boo xam ne bu ko borom defee dañ koo war a teg jëten ci àdduna yàlla tëkk ko ëllëg ci alaaxira loola mooy bàkkaar bu mag ibnu Mas'ud mu ne kabaayir yi daal mat na fanweeri kabaayir ak ñett mooy tax inte tëli boo yooyu yëpp fanweer la ak ñett muy 33 bor yenn ci saxaaba yi ibnu Mas'ud ne kabaayir yi ñeent la ibnu Omar ne kabaayir yi juróom-ñaar la ibnu Omar ibnu al-Aas mu ne juróom-ñeent la ah, Abu Talib al-Makkiyu wax na ne bàkkaar yi bañ ko seetee yu mag yi ñeent la ñeent yi ci xol lay ne mooy bokkaale yàlla nuur ci mooy yàlla naagu ci yërmande yàlla hóolu njaayam yàlla yeneen ñeentee ci làmmeñ la ne mooy seede ay nar ak xas gor yu baax yi ak gëñ goo xam ne gëñu kàcc la muy ñu ko tuddee yaminul xamuus day nuural borom ci safara ak njabar waaye mu ne ñaq ya ci biir lay ne mooy naan sàngara lekk xal lu jirim ak lekk riba ñaar yi ci pëy lay ne mooy njaalo ak nekk góor jigéen yeneen ñaar yi ci loxo lay ne mooy rey nit ak sàcc benn ba ci tànk lay doon mooy daw bisab xare alfiraar min as-saxfi beneen ba nag jëmm ji yëpp ko bokk mooy dëngee sa ñaari waajur lii la abu taalib almakki yu séddalikoo bàkkaar yu mag yi mu ne yii la ah boo demee nag taawus moom dafa wax ne wax nañ ibnu abbas ne ko bàkkaar yu mag yi juróom-ñaar la wax nañ ne maanaam alkabaayiru sab'un qaala mu ne hiya ila sab'ina aqrabu juróom-ñaar fukk daal la gën a jege ci juróom-ñaar waaw waaw loolu la Ibnu Abbas wax de Saïd ibnu Jubayru benn góor wax na Ibnu Abbas ne ko alkabaayiru sabon Ibnu Abbas ne ko hiya ila sab'a mi aqrabu minha juróom-ñaari téeméer muy sat cent bàkkaar yu mag moo moo gën a jaadu muy nekk juróom-ñaar juróom-ñaar ak juróom-ñaari téeméer la gën a jege ci juróom-ñaar kon bàkkaar yu mag yi dafa bëri su ko defee nag kon bàkkaar yaa ngóog hmm. waaye bu la ci kenn nax tuub rek moo la ci mën a dimbale tuub rek tuub gi yàlla sax nag mooy tawbatul nasuux tawbatul nasuux nag mooy tuub gu dëgg goo xam ne boromam bu ko defee duutu ca delloo ti mukk comme ni meew mi génn ci batt bi nim mu lottoo delluwaat ca yow muy tuub tuub gu sell timit noonu nga war a dogoo ñàkk a ca ba waaye tuub ba pare ba delluwaat ca loolu nar la loolu kàcc mënu koo paase moo tax kon boo demee ci borom xam-xam yi wuti ci tawbatul boo demee zul usnay ni dafa wax ne tawbatul nasuux mooy koo xam ne borom fu mu toll ma ngay sotti ronxañ xasan wax ne an nasuux mooy waa ji bañ bàkkaar ak lépp lu koy waral jéggalu ca yàlla imaamu kalbi yu mu ne tawbu nasuux muy réccu ko ci xol an nadamu bil qalbi wal istigfaaru bil lisaan wal iqlaawu an zanbi wal itminaan an ala annahu laa yauda laa yaudu loolu daal la wax saxiid ibnu jubayr yu mu ne at tawbatu al maqbula mom lañu ñu tawbatun nasuux tan tuub duñ ko nangul lu dul mu la mu mag mu ëmb ñetti safa moy ragal suko défé ak yaakar <clears throat> ak timit takko top yalla fo mëna né kon da fay laaj manam khawfun ak boole ko rajaun ak idmanu ta'at li moy tax ñu nangul su tuub sufyanu suri laaj nañ ko naka tawbatun mu ne mooy alxillatu wal illatu wal zillatu wal usla wal usba ñeent yi moom mooy taqoo néew ga xella ba toroxtaane ga wa xurba kon mooy xurba mooy tumuranke ga Iyaad moom fadlu an fadlu ibnu Iyaad mu ne daal an yakuna san bu bayna aynayhi mooy bàkkaar bi dafay mel ni yaa ngi ne ko jàkk ci sa diggante bët yi su nuun bañ ko ko laajee alaamatu tawbatu nas mu ne ñett la néew looy wax mooy xilla boobu mooy xillatul kalaam xillatul taxaam xillatul manaam ku say nelaw néew sa lekk néew say wax néew xam nga tawbatul nasuux hmm. imaamu Shaafi'i yu laata muy génn àdduna dafa ne yal na yàlla yërëm Shaafi'i yu fekk booba Muzanna wala almuzni yu moo ñëw seet ko ci feebar bi mu génnee àdduna ne ko noo mu ne ko xëy rek nekk kuy laxas bàyyi fi àdduna war a teqali ko samay mbokk war a naan kaasab dee kese asbaxtu min addunia raaxilan walil ixwaani mufaariqan wali kësil maniyati shaariban lii de laa fi ne wa alallaahi jalla zikruhu waaridan wala wala wallahi ma adri ruuxi tasiru ila aljanna am ila annaar man nag la ma ca gën a métti mooy damaa xamul sama ruux gi aljaana laa jëmam ولا سفر لا يدم واهل جانا لاكو كو ورا جاليم وا سفر لاكو ورا جويال سوكو ديفي نك تلاي واخ ويا جاندي سان ولما قسى قلبي وداقت مذاهبي جعلت رجا مني لعفوك السلوما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظم ويرفك رفد له من يو يا الله قلبي وونه sama demuwaay yëpp xat nañ waaye def naa sama yaakaar muy eseel ci sa njéggal sama bàkkaar màgg na ci man waaye bi ma ko lëkkaleeg sa njéggal rek gis naa ne sa njéggal moo gën a màgg samay bàkkaar kon nag yàlla ku jéggale bàkkaar yépp la inna laa yaxfiru sunuba jamian la yàlla wax moo tax ndeysaanam yàlla dafa njëkk a wax ne qul yaa ibaad lasina asrafu ala anfusihim laa taqnatoo min rahmatillahi lu tax mu ne inna laa yaxfiru ba jamii'an mooy aaya bi bu yaakaar ci aayaat yi ee yéen sama jaam yi bu leen naagu yéen ñu yàq seen bopp bu leen naagu ah ci sama yërmande ci sama yërmande ji matale na ñëpp te man yàlla dinaa jéggale mbooleem bàkkaar ya ba ñu wax ne alquran aaya ji moo ci ëpp yaakaar ci mbooleem aayaat yi nekk ci alquran yëpp. aaya ji keroog ba mu wàccee sax ci la tabaarakallaahu ah, ki rayoon Euh, wax si yu mi rayoon xamsatu ci la door a tuubee ndax moom keroog ba ayaat wallazina laa yad'uuna ma'a llaahi ilaahan aaxara wala yaqtuluuna nafsa llatii harrama llaahu illaa bil haqqi wala yasnuuna wàccee mu ne bii arrangé wul ma ndax man yàlla day tere rey bakkan rey naa bakkan day tere njaaloo njaaloo naa kon man fu ma jëm beneen aaya ba wàcc muy inna llaaha laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru maa duuna zaalika liman yashaa yàlla du jéggale ku ko bokkaale waaye lu dul bokkaale mën na koo jéggale ci lu dul tuub waaye ña ko neex mu ne li ma ne saaw ji moom a ci jaaxal xaw ma naa bokk naa ci ña ko neex am déet waaye keroog ba ayab yaa ibaad lasna qul yaa ibaad lasna asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaxfiru zunuba jamian ci la wax ne aaya ji nag moom a arrangé amul benn condition dugg naa dugg ci diina ji te gis nga nit ki bu mu bon a bon a bon ba tax nga ne yàlla du ko jéggal boo ko waxee sax yàlla jéggal ko yow moomu wax loola yàlla topp la baat boobu yóbbu la safara yonentoo nettali saxaaba yi war ko mën a yéen sama saxaaba ma nett leen histoire boo xam ne fekkul leen fi xamoon na ku leen jiitu woon ci banu Israil rey na téeméeri nit yu manqué benn mu laaj boroom xam-xam bi daq jàng ci kaw suuf ñu tegtal ko benn yahóot benn làbbe mu dem ca moom ne ko lu dul mbaax mbaax ma ko gënal baax rekk laa bëgg a def rey naa téeméeri nit yu manqué benn yi tegtal ma ne yaa fi dàq jàng ma lay laaj lan laa war a def tey ba yàlla jéggal ma boroom xam-xam ba nekk ku soxor ku ku xat dégg ne ko yow xaw ma kan waaye safara nga jëm benn bakkan ku ko rey dem safara waxuma la ñaar waxuma la ñett waxuma la juróom-ñeent fukk juróom-ñeent mu ne ko comme safara laa jëm kay taxal ma jekkale rek mottali téeméer bi ku ma wax waxati ñaata nga rey ma ne téeméer téeméer a gën a neex a tudd ci juróom-ñeent fukk juróom-ñeent ndax loolu ñaari lim la tisaatun wa tisuna ñaari lim la mais mi amoon benn lim rek la hmm. mu jekkali sëñ daara ba xay ko mattalee ko téeméer ba mu demaat ba ci kanam xelam nekk ci mbaax mu laajaat ñi fi des ku fi dàq jàng ñi tekkal ko benn làbbe mu dem ca moom ne ko rey naa téeméeri nit lu dul mbaax mbaaxam a ko gënal ma lay laaj ban buntu laa mën a fëgg ba yàlla dugal ma ci yërmandeem mu ne ko foo doon defee lu bon lépp lépp di fa njaalu di fa sàcc di fa rey bakkan na nga fa gàddaay bu fa demati bukk dogu dem foo xam ne suuf soo xam ne mosoo faam mooy yàlla nga fexe koo sanc dëkk fa di fa jaamu yàlla waaye ja takk bagage départ dem ba xaajale jéggi-jéggi benn jéggi rek dee malaa kay mën yeeg malaa kay mbugal yi di ko xëccoo ñii téye tànk ya ne safara ñii téye bopp ba ne aljana yàlla xebal menn malaaka mu ñëw pour xatte leen xadis la de yonentu bi ko wax de mu ne li natt leen fi mu bàyyeekoo fi mu tëdd bu paree ngeen natt fi mu tëdd ak fi mu doon jëm fu ca gën a jege bañ ko seetee fa doon jëm gën a jege benn jéego yàlla ne xàtt naa ko ci sama yërmande kon dugal leen ko aljana te tey na téeméeri nit lim njaaloo kenn mënu koo wax lim lekk xal li jàmbur kenn mënu koo wax lim tàbbal naqar ci xol yi aadama yi kenn mënu koo wax waaye gis nga lii rek dogu ci tuub rek xeggagul sax fa doon jëm ci ci la ko yàlla dugale ci yërmandeem moo tax kon yërmande yàlla ji bul ca bul ca bul ca bul ca génnee kenn dugal ci sax ñu ca bokkul moo gën génne ca ku ca bokk lu nit ki bëri bëri bàkkaar bu mu tax nga ne ki yàlla mënu koo jégal boo ne yàlla mënu koo jégal da ngaa yàlla su boobaa yàlla day wax ne ah man ngay lottaloo sama yërmande ji su boobaa nag man nag xajal naa ca waajooja yow nag ma xeeñ la ko nga dem safara kon nag yërmande yàlla ji dana jot mbooleem mbindeef yi yërmande yàlla ji moo jot suñ maam Adama. suñ maam aadama ba ko suñ borom tegee garab ga ne ko bu ko jege wala taqraba hadihi shajarata fa takuna min azalimina waaye ba mu ko mosee moom ak soxnaam lu ko ca fekk ah fa talaqa aadamu min rabbihi kalimatin fa taaba alayhi innahu huwa tawaabu rahim yàlla dëgg ca jéggal ko benn jigéen goo xam ne tuub na tuub goo xam ne doy na tuub ak juróom-ñaar fukki ñu xam bàkkaar te loolu hadis la jigéen la goo xamee ñu ngi ko gën a xamee ci alxamidiyatu yàlla ko nattuwoon mu njaaloo mooy mooy bi mu njaaloo moo ñëwal boppam ba ci yonantu bi ne ko yonantu bi jëlal yàlla teg ko ci sama kaw damaa njaaloo ji nga doom ji gis nga ëmb bii maa ko ëmb yaa ngi koy gis nii te ooma jëkkër yonantu bi ne ko demal bis boo demee ba am doom rek nga ñëwaat yi door a jël àtteeb yàlla bi teg ko ci sa kaw mu am doom ca tooy doom ja tooy xet mu dem lëmas ko ci sagar ñëw ci yonantu bi ne ko xam naa doom mucc naa damaa bëgg xatte bi yàlla teg ci sama kaw nga teg ma ko léegi ne ko demal nga nàmpal sa doom ji ba mu fer bu demee ba fer nga door ma ko indi nga door ko indi waaye yow mii war a nàmpal sa doom ji kenn du ko demee nii mu dem nàmpal doom ja ba doom ja fer keroog ba muy ñëw yonantu bi sax doom jaa nga yore mburu mu won ko ne ko kii mën naa lekk gis nga ko ni mu ngi téye mburu di lekk keroog la yonantu bi nag nag léegi jël leen xàtteeb yàlla bi ngeen gàcc ko ko ñi koy duur di ko sànni ay xeer tabaarakallaahu di ko def ba mujj muy daw ñu topp ko ak xeer ya ba mu mujj ba mu mujj dee saxaaba yi ñëw nag di nettali rek ku mel ni Xaalid ibnu Walid ne hée moom kay jam naa ko ni ñi jamee mbaam dafa doon jéem a daw moom yàlla suturaal ko muy weer boppam ba dóor ya méttee muy jéem a daw motax timit wax ko way waaye kii moom da da wax wax ju ki yonent bi nako mahlan ya xaalid fa wallasi nafsi bi yadihi laqad taba tawbatan law qusimat bayna sab'ina min ahli almadina law sa'adhum yonent bi nako ki de mang lay watal ci yàlla yow xaalid defal nànk tub na tub go xamne buñ ko séddale woon madinatul munawwara juróom-ñaar fukku ci waa ma Munawwara yi moom mu xëppale leen benn tuubam nga xëppale juróom-ñaar fukki nit ñu fi tuub juróom-ñaar fukki nit su ko defee nag ah mu ne ko fu mel ni ah, jamono ji may wax ak yow ma ngay féey ca piscine yi aljana ya te njox na si njaaloo na xam ëmb te sangeexu na ñu jaal bi ko jam ko xeer bam dee waaye mu jëlee ca set wecc ci la imaamu Saafi yu wax ne xudóot yi la Ah, imaamu Malik ne ko xodóot yi sawaajir la dafay jàjji nit ñi pour boo liggéey buñ tegee giseen kooka kenn du ko defati Saafi yu ne ko jawaabir la dafay jagal nit ki mboolem damm damm yi defoon ci ay bàkkaar buñ ko xasee teg kan bii rek mu setal ko wecc mu mujj dem aljana Malik ne ko déedéet sawaajir rek la waaye duhut jawaabir waaye gis nga kii waaye boo ko seetee xaqiqatan da nga fekk muy sawaajir boole ko jawaabir boole na jawaabir boole ko sawaajir dana jàjji nit ñi mais dana la setal say bàkkaar ndax kii tuub gii tey mu tuub ñu jëkkati pen bi xatte bi teg ko ci kawam mu muñ ko ci la yàlla dëggee setal ko ba tuubam gi mu ko séddoo ma dën mu a mu xëppale leen juróom-ñaar fukki yoon yësi dëkk ba yépp kon nag gis nga ko fi mu jaar ak lépp yàlla toppul ko ca dara xoolal wax siyu rey xamsatu di ko puufu waaye ba mu tuubee dugg ci diina ji yàlla jégal na ko lépp toppatul ko dara kon yàlla ku bari bàkk ku bëri maanaam mën a jégale bàkkaar la yàlla ku bëri yërmandi la tabaarakallaahu ba tax na lu loxo tilim tilim boo ko ko tàllalee rek ne ko jël ko moom yàlla mu jël ko kon nag nañuy bàyyi xel bu baax a baax yàlla ku baax la mën a kafaaraal nit ki ay bàkkaaram lool xam na ci yoo xam ne yonentu bee ñu ko jàngal boo ko jàngee yàlla jéggal la say bàkkaar xam na ci yoo xam ne tamit ay julli la yu ci bari jaaroon naa ci amna ci yo xamne ne ñu ko ay ay wax rek la boko waxe yàlla jégal sa bakkar yëpp ñu koy tuddee sayidul istigfaar yonentu bee ko wax de mu ne sayidul istigfaar jégalu yàlla yëpp bi sen chef moy jaam bi taxaw ne allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waadika mastataatu أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي faxfir lii fa innahu laa yaxfiru zunuba illa anta yonent bi nee nag képp ku ko wax ci bëccëg bi hóolu li nga wax nga dee ca bëccëg booba wala nga wax ko ci ngoon gi hóolu li nga wax billaahi boo deexee dem xaljana ku ko wax ci guddi gi hóolu li nga wax boo maanaam nga dee njëkk suba di jot boo yow yaa ngi bokk ca waa xaljana yi te xadiis bu Buxaari yu moo ko indi Buxaari yi moo ko génne moo tax ñu fi man qaalaha min al layli wa huwa muuqinun biha fa maata qabla an yusbiha fa huwa min ahli al janna rawaahu Buxaari yi lii mooy sayyidul istighfar boo demee ci Buxaari yu yëpp fekk ko ca allahuma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waadika mastataatu ba ñaan nga jeex yaakaar naa yow mi may déglu jërul sonn ni nga sonn ki dugal sa crédit bi xam bonus yi xam ñaata message lañ nga envoyé fexe groupe yi nga bokk di jokkoo ak yooya genn wàlla te genn wàllam boo ko defee mokkal li bët bu set boo xëyee jàng ko ñetti yoon bu ngoon jotee nga jàng ko ñetti yoon jéggaloo ko yàlla waaye ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ابن مسعود مو جيني حديث من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو حي القيوم واتوب اليه كو واخ لي رك يونت بي ناني جيغل سا بكار ييب دونتي داغا داو سي خاري دا حديث بي ابو داوود اك ترمذي اك حاكم نيوم نيب نيو صلو حديث بي مانام بخاري تيميت اك مسلم ييب نيناني حديث بي ويرنا كون يول يومنا astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi nga wax ko rek yàlla jégal sa bàkkaar yëpp na fekk ba nga ko waxee nga gëm ko fas ko te def lu baax mu ne tamit yonentu bi salaa sallam ne man qaala maanaam fi yowmin subhanallah wa bihamdihi loo rek nga wax si subhanallah wa bihamdihi téeméeri yoon nga wax ko ko yàlla sippi la sa ñaaw teef yëpp donte sa ñaaw teef yi dafa bëree bëree bëree bëri ba mel ni duusi géej gi bu ko tolloon sa yàlla jégal sa bàkkaar yi yonent bi mas naa toog ah, Muhammad ibni Abdillahi ibnu Muhammad ibnu Jaabir moo ko wax mu jëlee ko ci baayam génn góor ñëw fekk yonent bi toog mu ne ko waay waay yonent bi waa waa zan baaxu waaye maa bëri bàkkaar sama bàkkaar yee bëri waaye sama bàkkaar dafa bëri yonent bi ne ko waay waay kaay ma wax la baat boo xam ne ñett yoon nga koy wax rek yàlla jégal sa bàkkaar mu ne ko lan la mu ne ko waxal ne allahuma magfiratuka awsau min sunubi wa rahmatuka arja indi min amali yow yàlla sa njëggal gi moo gën a yaatu sama bàkkaar yi sama bàkkaar yi li muy bëri bëri sa njëggal gee ko gën a yaatu kon labal ko ci waaye yow yàlla sa yërmande ji moo xëpp yaakaar ci jëf ci samay jëf li may jëf wóoluwuma ci dara sa yërmande dong laa wóolu waa ji wax ko yonent bi ne ko waxaat ko mu waxaat ko ba mu ñetti yoon yonent bi ne ko sa bàkkaar yëpp yàlla jéggal na la ko xum faqad gafara laahu laka jugal yàlla jéggal na sa bàkkaar yi xaakim moo solo xadis bi mooy allahuma magfiratuka awsa min sunubi wa rahmatuka arja indi min amali loolu xam ngeen ne yomb na juróomeel ba abubakar siddiq moko wax mu ne ko man yonantu be ma waxal ñaan gi makoy ñaan ci sama julli ni allahumma inni xalamtu nafsi xulman kathiran wala yaghfiru sunuba ila anta faghfir li maghfiratan min indika Warhamni anta Warhamni innaka antal ghafurur rahim muttafaqun alayhi la Aboubacar mu ne yonantoo ma wax ne del ñaan ñaan gi ci sa julli boko defé yàlla jéggal la sa bàkkaar yi juróom bennel ba abi musa al Ashari mu ne ma jele ci yonantu bi sallallahu alayhi wasallam mu de mu ne na ñaan ñaan gi allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni allahuma ixfir li jiddi wa hasli wa xatiati wa amdi wa xatai wa amdi wa kullu indi اللهم اغفر لي ما قدمت وما أقرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير وكده في حديث متفق عليه لا كوكو وحي الله جيغل ساي بكار واي جوروم نيارين ابي هريره ما واخني يونت بي صلى الله عليه وسلم دا فدان واخ بو اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله wa awaluhu wa akhiruhu wa alaniyatuhu wa sirruhu bo sujoute nga wax li yalla jéggal say bakkaar kon yëpp ay promotion la yu yalla jagleel jambi bi jambi ne ta tilim mu defal ko ko muy ndox mo xam ci lay sangu te bu ko sangoo dana ca set wecc yalla du ko ca topati dara ci mbaxam tabarakallah yalla du ko ci topati dara ci yermandem su boba nak kon comme man ta ñak dañu ko duxuñu ay malaaka su boobaa waaye comme tilim mënta ñàkk fuñ toll rek nañuy set Seexu Tijaan dafay wax ne mu jël jamono ngi ñëw bàkkaar dana bëri ba mel ni taw bu fekk kenn ci yéen ci àll te amul fu mu seeloo foo jaar tooy waaye moo tax taw bu la fekkee ci àll te amoo fas moo def ba doo tooy tengaada mënu ca dara laafa mënu ca dara foo jaar tooy moo tax jamono ji coow lee bari mais ñëpp a tooy taalibe yeeg sëriñ yeeg mag yeeg ndaw yeeg góor ñeeg jigéen ñeeg kilifa yeeg ñëpp a tooy ku waxal sa bopp xam ne tooy nga moom koy gën a tooyee si nekk rek su boobaa nag mu ne comme tooy manta ñàkk fexe leen ba bu ngeen tooyee lan mooy wowal seen yëre yi ma wax la yépp luy wowal yére la te ay kàddu yu ñuy wax rek la bëri salaatu ala nabi def ci yonantu bi luy wowal yére la su ko defee tamit nag yooyu yëpp boo ca nekkee rek yàlla ku baax la ku bëri yërmande la bu kenn naagu ci yërmande yàlla ji bu kenn naagaloo jaami yàlla yi ci yërmande yàlla ji yàlla mbugal ñu yokkut ko dara mu bokk mu boole jéggal jaamam yépp tamit wàññiwut ko dara man na ko yàlla ñu ko yàlla boole defal ñun ñëpp kon nag ci ndénkaane bu baxee ko yoon tamit daan wax ne boo bëggee lu kafaara sa bàkkaar yi yëkkati say daraja déglul ndénkaane bi yonent bi waxoon Muaz ibnu Jabal nga xam ne ah, dafa nekkoon ku ku tëju woon ci xëy ci salaatu subhi ba ñu mujj gis maanaam mburum bi su ko defee na mu génn ci lu gaaw bokkoon ci loolu ka ñu nga xam ne lañ ci seen euh, euh, bàkkaar yooya ca xare ba euh, ca xare ba ba su ko defee nag mu ne ñu julli ba ko defee nag yonantu bi daal di ñëw nag ci sàppe jublu si ñun mu ne nag sa uhaddisukum ma habasani ankum algadata inni qumtu min al فصليت ما قدر لي فنعت في صلاتي حتى استخفت حتى استثقلت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن سورة فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري ربي قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري به يا لا أدري rabbi qaala yaa muhammad fiima yaxtasimu almalawu alaa qultu laa adri rabbi fa raaytuhu wadaa kaffuhu bayna katifi xatta wajadtu su ko defee léegi dafa xaddee ka xaddis bu gudd la yonent bi dafa yéex a génn ci julli suba fekk gaa yaa nga defi sàppi mu jug ba mu paree ba pare ba sëlmal mu ne du ngeen ñëw ma waxtaanal leen solo leen li ma tax ma yéex a génn ñu ne ko lan la mu ne damaa nelaw tuuti damaa la ci guddi gi ba pare tëdd di nelaw tuuti li ma gémmantoo rek ma gis sama borom ci melaw ba gën a rafet mu ne ma yow si yow yonent bi ndax xam nga waa malawul axlaa li ñuy xuloo ni li ñuy coow ma ne ko déedéet yàlla moo ko xam mu laajaat ma ko ma ne ko yàllaa ko xam mu laajaat ma ko ma ne ko yàllaa ko xam mu jël ténkam lu tedd loola moo xam la la teg ko ci samay mbagg yëg naa sax seddaay ba mu def tajalliyaat ya muy def maanaam ci man ma xam la ma xam mu ne yow Muhammad malawul a'la la ñuy xuloo mooy ci kafaaraat yi ak darajaat yi liy kafaara bàkkaar yi ak liy ci darajaay jullit ñi ëllëg moom nag wax nañ ne toxal ay déegu jëm ci jumaa yi di julli ji ak dem ci jotaay jakkay gannaaw war dem ci jakkay di julli ji ak dem ci jumaa yi di julli ji ak gannaaw bi julle ba pare nga toog fa ak a gaaw ci yëkkati dara gi te mën a kafaara bàkkaar jamono ji nga xamee dafa sedd nit ñi ragal ndox mi nga jàpp njàpp lu tooy xeet ak a mën a yëkkati dara gi te mën a kafaara joxe ñam nit ñi di lek ak mana kafara a kafaara bàkkaar te mën a yëkkati dara ja nooyal sa kàddu ba na sal aka mën a yëkkati daraja te mën a kafaara bàkkaar di julli guddi fekk nit ñaa ngi nelaw aka mën a yëkkati daraja te mën a kafaara bàkkaar nga laaj sa borom maanaam yiw yi su ko defee mu ne ko na ba mu ko waxee lii mu ne ko qaala sal qulta allahumma inni as'aluka fi'la alxayraati wa tarka almunkaraat wa xubba almasaakini wa an taxfira lii wa tarxam nii kàddu yooyu nga ñaan ko timit aka mën a yëkkati daraja te mën a kafaara bàkkaara xaddiis bu gudd la dem leen ngeen seeti ko ca sayiwul muslim su ngeen demee da ngeen ko ca fekk nga xam ne malawul ala ba ñuy xuloo ci luy yëkkati daraja yeeg luy kafaara bàkkaar yi am na ci yoo xam ne kàddu yu ñuy wax la am na ci yoo xam ne dañ koy jëf jëf ya nag mooy di bàggante ca jàkka ya rek bu àjjuma jotee nga bàggante dem ca jumaa ya rek soo jullee ba pare toog fa di tudd yàlla comme nekkoo ci kuy liggéey fekkee da ngay liggéey nga gaaw dem yooyu yëpp lu baax la waaye salaatu taw tawba muy julli gu ñu tuddee julleeg tuub jullit bu nekk war na koo taxoo comme bàkkaar yi dafa bëri yonent bi nee na amul benn jaam buy def bàkkaar su ko defee tim doon defee bàkkaar mu xaar naafi la mu jàpp ba mu jàppee julli ñaari rakkaa raka bu njëkk ba mu jàng fatiha ak aaya ji walladina ida faalu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru llaha fastaxfaru li zunubi wa man yaxfiru zunuba ila llah wa lam yusirru ala ma faaluhum yaalamuun ma ngi ca Aali Imraan ngeen ko ca aaya cent la nekk ca aaya ju njëkk ja maanaam nga jàng ko ca raka bu njëkk ba bu deuxième ba nga jàng fatiha ak fukki sëlmal bakari yi nga defoon yépp ci baax ak yàlla yàlla jéggal na la ko salaatu tawba daal julit bu nekk war na fexe bët bu set mu di ko julli waaye tëdd ba maanaam xëy ba ngoon jot ku nuur ci ay bakar te julli wala salaatu tawba aay ji ma wax nag bu jafee timit jàngal loo man rek jublu ca maanaam gannaaw bi nga jàppee ba mu sell nga jublu ca julli ñaar rakkaa bu ko defee boo jël boo jullee ba sëlmal nga talal say loxo ne yow yàlla yàlla nga ma jéggal sama bàkkaar yi ma def yépp su boobaa mu tudd salaatu tawba waaye boo mënee aaya ji ne wala dina isa faalu faahishatan ci Ala Imran aaya 135 bu paree nga defaat beneen a ah, beneen beneen araka ba faatee ak fukk walaaw mu gën a baaxati te loolu am na doole lool comme bàkkaar yi dafa bëri nañuy bëri rek lu ñuy tuub di jéggalu yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax yàlla ku bëri yërmande la moo tax yonantu bi mos naa woo bilaal mu ñëw ma ne ko bilaal dégg naa sa yëngatu dàll yi sama kanam ci aljaana bi ma sabaq nii ilal janna noo def ba jituma ci aljaana dugg naa démb aljaana mais maa ngi dégg sa yëngatu dàll yi sama kanam mu ne ko su fekkee maqaama boobu xam naa ko de man de musuma def bàkkaar mu kudur ba jul na ñaar rakka fu ma defee bàkkaar rek gaaw julli ñaar rakka rek tu mu ne ko waaw kay yow kay lii a tax kay ma dégg sa dàll yi ca mu ne ko ñaareel ba jul naa ñaar rakka moom daal fu ma jàppee jul ñaar rakka loolu moom ma ko takkoo carrément kon ndekkee li taxoon bilaal dugg aljaana ba yonantu bi dégg yëngatug daal lay mu ca kanamam ci aljaana la ko ko may mooy fu mu defee bàkkaar juli ñaar rakka tuub waaye fu mu jàppee timit def na bàkkaar defut bàkkaar dana juli ñaar rakka ca njàpp loola noona loo ko yàlla loolu maa ngi ñaan yéen jullit ñi di ma déglu nañ ko góor ñun ñëpp ngi def ko ndax bu buñ sañoon ñun ñëpp dem xaljaana xaljaana ñu ñëpp xaj nañ fa te kenn du xatal sa bopp bu bokkut ak kër kër àdduna bu soof gi nga jàpp yow boo xamee kër ñeneen ñi duñu xam kër maanaam ñi jël nañ fi gën a baax su ma jëlee place bi kenn du am place xaljaana ñun ñëpp xam nañ place dama ne kenn ku ne fa muy teg dokkam ba muy yëre rek moo ëpp àdduna ak lu ci biiram kon ñun ñëpp fa xaj nañu yéene xante ñun ñëpp dugg fa waaye naa dugg xaljaana diw dem safara boobu xol baaxut julit wurul ko yore yàlla yàlla dugal julit ñëpp aljana ak lu bàkkaar ya mën a bari bari bari bëri ak lu tooñ ya bari bari yéen mën de yàlla jàkku xëpp téeméeri ne yoon kon yooyu yëpp lañ ko ci baxi xel loolu buñ ko defee rek baax ak yàlla jile ak yërmandeem ju yaatu jile yàlla defal ñu ko waaye gis nga tuub nag buñ koy def te fekk am naa fekk nekk ci biir dana jafe de yonentu yàlla Muusa dafa euh, ñooñam ña dañoo maraloon mu def salaatul istisqa muy baaw naan yalla ji tawut mu defat ko yalla ji taw da muy ñetti yoon mu ne yow yalla yaa ñu sant ñu def salatul istisqa julli naa ko lu tax tawo mu ne ko dafa am benn rambaaj bu nekk ci seen biir ba ci banu Israël moo tax tawuma ma mu ne ko waaye wan ma ko rek ma jëflanteeg moom mu ne ko su ma la ko wanee man di kat di diggalal ñëpp ñu tuub rek mu tuubaale ma taw musa na ñun ñëpp nañ tuub ba boo waxee rek waaja tuubaale ca biir tuuba gaay rek su ko defee tamit yàlla dëgg ca taw ndox moo xam ne kenn xamul ni mu ci bëri moo tax kon bu yàlla téye ndoxam nii ñun liñ xam ci ay naafeq kenn xamuñ nuñ toll liñ xam ci ay sàcc kenn xamuñ nuñ toll liñ xam ci ay fenkat niñ xamut nuñ toll liñ xam ci ñuy jaxase di yàq kenn xamut nuñ toll moo tax lépp luñ xam rek billaahi mérité wuñ ko yàllaa ñu ko defal ci barkeeb sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ci barkeeb alquran mu tedd mu sell mii mais bu ñu yàlla bàyyi woon ak suñ boppar ñu ñëpp ñu torox kenn tenewut la ca nag ñëpp a ci xam kon nag ni daaw boobu ma jox la ñu ko doon jàng mu yaay wala si amoon tuubu ilallahi tawbatan nasuhan mooy ni daaw bi mujj ci ni daatu rahmaan nekk juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent toppaloon naa la ko ca commencement ba yaay wala si amoon laa taqulu raina moo ci njëkkoon waaye bi ci mujj tamit mooy yaay wala si amoon tuubu ilallahi tawbatan nasuhan toppal naa la ko lépp benn par benn ci téere bu ñu tuddee ni daatu rahmaan mu nekk juróomi xaaj suñu waajur wu tedd wu baax wa sëriñ Maodo ture ñu nekkoon Tiwaawoon ndeysaanam di doomi sëriñ Haadi ture nekkoon tamit di ab xalifaam dafa bokk ci téere yi nga xam ne moo ñu ko mayoon di nit ku baax koo xam ne dëgg dëgg dëgg dëgg nuñ koo fàtte ba bañ koy fekkee ji ëllëg yàlla nañ ko fekk aljana euh, ba tax na daal maa ngi ñaan nit daa aat yii ma doon firi képp ku ci dégg xiw woo ci mën a dégg nga to nga am loo ko jëfee bo ñu ñaanalee na nga ñaanal sëriñ ma sëriñ mawdu Touré ndax moo ñu jox kay damadan at mu jot dama daan ut presque lu mat ñenti oto léegi lañu def juroomi oto dem siyaara ji ko ndax mom mag mu toll ni mom mag mu baxé ni mom jarañ na jaral na ma déplacement ak lu mëna xam dem séti ko ndax yëg na né ku ak mom mu soppi la ci mbaxam ga ak selam ga su ko na suma ma dafa may sefal téré sama oto bi presque ba mu fess euh, motax dal Euh, si suñuy téere yi bu fekkoon ne téeméeri téere la juróom-ñett fukk yaag juróom-ñeent yëpp Serigne Maodo Touré moo ñu ko may kon yal yàlla yokk leeram nit ku baax te loolu ma wax xam naa ne du dana bëri ñu ma dégg ci ay jàngkat ñoo xam dañuy wax ni ah suñu aadi fi mu nekk dafa nekk ci waxeekaay bi rek mais waxal nañu de man mii moo may sama téere yi ku mel ni xam naa ne suñu Maxtaar Jaañ mën naa wax loolu fu mel ni daara kaamil fële ca tuubaa mën nañoo seede loola ca téere yam fa daan joxe waaye tabaarakallaahu ñu mel ni suñu mbokki jaamal ya mën nañ koo wax suñu mbokk yu baax ya nekk kokki mën nañ koo wax ak demeet ñu bëree bëree bëree bëri damaa wax rek li ma yàlla nattu ma nekk ci waxeekaay bi waaye yóbbuwaal naa ci ñu bëree bëree bëree bëree bëri kon sëñ Maodo Touré yàlla na yàlla yokk leeram waaye fayal ñu sëñ Pape Alioune mi nga xam ne moo ma jokkale ak moom tabaarakallaahu ba mu mujj def ma ni doomam ñun tamit ñu def ko ni suñu baay ngir mbaaxam nga ak sellam nga yal na yàlla taaf ñu ci barkeem te yokk leeram ci barkeem alquran mu tedd mu sell mii nga xam ne quraanan arabiyan la yàlla wax waaye terewut nag am na ci baat yoo xam ne du baati arab waaye baat boo fekk ci alquran nekkul baatu arab tamit xamal ne arab ya dañ ko daan waxee na ko daan ñeneen ña di waxee rek yàlla ñëw tudd ko ci téere bi waaye baat boo ci fekk rek bu dul arab tamit dañ koo arabal dañ koo arabal loolu rek la dafay am langue ci xeeti langue yoo xam ne ñëpp a ko bokk waaye quraan arabien la ñëpp jàng nag moo tax euh, boo demee ci alquran da nga ci fekk tur yoo xam ne dugul turi arab dugul turi yaram lu mel ni israil lu mel ni jibril lu mel ni imran lu mel ni noox lu mel ni luut yooyu turu xajam lañ waaye benn ci yi ma wax dugal tur tur tur turu arab waaye tamit noonu ah, ajam yi doon ko waxee noonu la ko doon arab yi waxee moo tax bi alquran ñëwee tamit tuddee ko noonu rek fekk nga ci téere bi jibril man kaana aduwa lillahi wa malaikatihi wa jibrila fekk nga ci téere bi ala imran fekk nga ci téere wa nuuxan fekk nga ci téere wa luutan id qaala li qawmi yi demee fekk nga ci téere bi yaa bani israila noonu la ko doon làng yépp daan waxee éthiopien yi noonu lañ ko daan waxee waa turki noonu lañ ko daan waxee waa grec yi noonu lañ ko daan waxee bi alquran ñëwee tamit waxee ko noona ah ñi nga xam ne noonu lañ ko waxee woon ñoom tamit noona waaye danga nga ci fekk ci alquran baat yoo xam ne baatu perse la danga nga ci fekk baat yoo xam ne baatu éthiopien la waaye noonu tamit na ko doon éthiopien yi di waxee ca baat booba tamit noonu la koy arab yi waxee langue bu ñëpp bokk la lu mel mi mel ni almiskaatu jàng allahu nuuru samawaati wal ard masalu nuuri ka baatu miskaat du du arabiya euh, waaye li muy nekk nekk li muy nekk nekk euh, li muy ñàkk nekk nekk arabiya arab ya tamit noonu rek lañ ko daan waxee ñoom ak ñëpp maanaam ñoom ak ñëpp ñaanaam ñoo ci xemoon ñoom ñëpp ci xemoon di ko waxee noona moo tax euh, moo ba mu ñëwee te mu ne miskaatin baatab maanaam inna naasiata layli naasia du baatu arab waaye arab yi noonu lañ ko daan waxee tamit boo jëlee baatab kiif lay ni maanaam wayutikum kiif lay ni muy dian fay ni du baatu arab mais noonu la ko doon arab yi di waxee tamit langue yëpp tamit noonu lañ koy waxee ba tey tamit faran min xaswaratin baatu xaswara di firi gaynde kooku tamit du baato arab euh, ba tey tamit xusaaq di firi póotit du baatu arab yooyu yëpp tamit waaye noonu la ko doon arab yi daan waxee kon yu dafa daan am Euh, nga nga fekk ko ci yaaram yi ni ko daan waxee ci noonu moo tax tamit ñi ci yeneen langue di ko waxee noona bi alquran ñëwee tamit jël baat booba waxee ko noona moo tax tey boo jëlee ci euh, boo jëlee maanaam xaswara baatu éthiopien la boo jëlee tamit maanaam baatu xusaaq baatu turkien la boo jëlee baatu maanaam xistaat xam ne mooy miisaan baatul euh, euh, euh, romain la romain yi ñoo ko doon wax boo jëlee baatu sijjiil moom tamit maanaam baatu romain la boo jëlee maanaam baatab xijaaratu ak baatab tiin baatu perse la waa perse ñoo ko daan wax boo jëlee baatu tuur ji firi doj wala yemm ji firi njukkal doj njukka njukkal géej gi baatu saryaaniya la boo jëlee baatu tanuur moom tamit baatu saryaaniya la waaye baat yi yëpp nii waa sariyaan yi daan ko waxee turkiyen yi di ko waxee éthiopiens yi di ko waxee waa perse yi di ko waxee noonu tamit la ko arab yi waxee moo tax baat boo ci fekk bu dul arab tamit arabal nañ ko ndax dafay am ci baat yoo xam ne dañ dañ dañ ñëpp ci dëppoo ndax tey boo nee saabu boo nee saaboon wa saaboonu saabu tamit arab saabu lay wax rek waaye olof tamit saabu lay wax waaye baatam saabu du baatu olof waaye ni ko ni ko olof yi tuddee saabu noonu la ko tamit arab yi tuddee saabu baat yi ma wax la tamit noonu la mel ñooña ci seen làng yi nañ ko koy waxee tamit boo ñëw ci arab yi tamit noonu lañ koy waxee moo tax kon li yàlla wax ne quraanan arabiyan dëgg-dëgg amul dara lu mën a toxal loola wax jooja mooy li lu wér moo tax ah, ci boo boo ko jëlee yëpp nekk na arbul ariba la su ko defee kon nag ci loolu alquran wàcc ci làng woowa kon nag yàlla ñu yàlla fayal boppam yàlla nañu yàlla fayal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ñu jàngal téere bu tedd bu sell bu màgg bii